ñoom lu fête bu rëy bu ñu naan le grand bal des Faramareen ñu war ko def dans 48 heures incha allah rabi ñu ngi ci dernier réglage gis nga matériel yi ñu ngi câblé xam naa sax bu paree li ci kanam war nañoo balance wala plus tard ñu balance incha allah rabi. Euh, le grand bal des Faramareen tey lan lañ ci mën a xaar lu spécial parce que Wally yàgg fi mu toll nii Sénégalais yi nee nañ sonn nañ ci son yu bees yi il faut que ñu toggaat li nga xamante ni moom lañ ci ko way euh, d'avis avec ñoom innové indi yu bees indi bagage yu bees led yu bees écran yu bees ñu war a def surprise suba insha allahu rabbi ndax bu ñu la ko waxee du am sens nañ bàyyi ba ginnaaw suba rek insha allahu rabbi <laughs> ñaa lañ gis euh, kii di Wally Ballago Seck tournée yi nga xam ni def na ko maanaam si mois de décembre bi macha allah mu bëri lool lool lool euh, physiquement est-ce que du am li nga xam ne nii mën na ko yàqal si 31 décembre bi rek. non moom tàmm na ko ndax Wally ndeysaan nit ku am nit ku am compétition la maanaam jour bu am mooy dawal bu jegee mooy te tournée yi tamit macha allah tournée yi daal di bëri woon na loolu tamit liggéeyam la rek xam nga ku ak sa métier wooy mooy liggéeyam wooy lañ ko fi indee daa war di wooy day fay fay pour muy wooy boo xoolee le 21 ba léegi tooguñu le 21 le 21 lañ fi jógee demoon a on joué Gambie le 22 23 24 le 25 ñu ngi joué Mbour le 26 ñu ngi joué ñu joué ko Thiès le 28 ñu demoon Tambacounda dem le 29 ñu joué ko Kaay ñu war a joué la rek ndeysaan lu ko wax na léegi ngaay mu nekk événement bi nga xamee ni euh, mën nañu wax ne sax bett na Wally Ballago Seck parce que dem ñoo ngi ko doon laaj rek mu ni alhamdulilah gisagul image yi mais jàpp nañu fett na dell alors est ce que loolu yéen xaaru ngeen ko Wally Seck au niveau international wala si sous région bi public bu mel noonu wuy si moom waaw kaay démb ndeysaan dégg naa foofu moom wàcc na ba zéro ndeysaan xam nga Wally nag sous région dañu ko bëgg ak euh, frère euh, Sidiki ko bëggee Sénégal moom nañu ko bëggee Mali ñoom ay moom lañu woy seen woy loolu la loolu la firndeel dem ca gars yi nee na ay jinne ñoo ko wëy est ce que c'est dëgg parce que gars yi nee nañ fa mu toll nii jamono bi waale ay jinne ñoo koy euh, que gis nañ mu def Thiès gis ni mu def Mbour gis ni mu def Gambie jinne yi ko gis ne jinne gisuma gisuma jinne ay doomu aadama laa gis non man gisuma jinne xam naa gis ay jinne parce que pourquoi ñu wax loolu gis ay sénégalais yu bëri wala artiste sénégalais yu bëri à chaque fois buy tëgg Mali hmm. problème mu fees hmm. euh, des sax lañ naan ko tërëntuwaat wala. mais xam nga lépp jagleel suñu borom la rek lépp nit ki moom li yàlla namu ci moom kenn mënu ci dara yàllaa ko jagleel loolu rek mënoon naa joué tey du gis ñaari nit mënoon naa joué gis fukki nit bu joué ji muy fees tamit loolu yàlla ko jagleel rek dañ koy ñaanal yàlla mu jëm kanam incha allahu rabbi <laughs> mais est ce que challenge parce que Sidi dafa war a joué fii Waly war a joué fii euh, jàpp ngeen ni public bi nga xamante ni moom ngeen di am euh, dinañ dinañ dinañ feesal fii nga xamante ni moo des non ñun moom suñuy public moom dañuy wuy si fuñ fuñ demoon ba Tambacounda dinañu wuy si incha allahu rabbi loolu moom euh, yàlla ñu ko jagleel fépp fu ñu wootee rek képp ku sopp Wally Ballago Seck dina ko fekk ci kàttan suñu hmm. borom mais est-ce que du métti ci yéen parce que Sidi fii lay tëgg de sori wu leen de amul problème incha allah bu neexee mu tëgg fi ci ginnaaw Sidi am na ay am am na ay ñi koy baal si wala am na ñu koy baal si ku ne mën ngaa baal si sa artiste wàññiwul dara hmm. yeah ñun ñëpp on est des da ngay ñëw nii da ngay ah, ñëw mais wax na si lamb nootee nootee nañ concentré wu ci euh, ci ci ci grand bal rek. noonu lendemain la may lamb ba ma waatee ma wax la ci lamb ji loolu du problème ragaluma loolu. tey nañ concentré wu ci grand bal rek tey tey moom ñu ngi ci grand bal. mais Boy Niang pare na de. mais Modou tamit pare na. ah non mais ni ñu gisee Boy Niang. amul problème tey moom amul benn problème de tey waxuma waxi CNG waxi BSDA laay wax waaw nañ ko yemale ci BSDA rek. ba le premier janvier incha allah rabbi ci kattan suñu borom yàlla may ñu dem mu sedd guy ci kaw booy ñaar le deux ba ma songee ne moox lu leer nañ loo xam ne mais ñun ñun waaw xam golo nag ci ko golo nag ci ndig xam koy yeew te golo baa ngi woon ca kaw mais ñaa dafa mel ni victoire la indaale moom la wax indaale sa couronne bi génnagul parcelle non loolu jeexagul loolu jeexagul waaw moom moo ko wax nee na couronne bi génnagul parcelle ngeen doon joué lañ doon le premier la ñuy final incha allah rabi ci kattan suñu borom kon daal da ngeen a nangu mairie Pikine non mairie non non préfecture mairie dafa ndaw ñu préfecture lañ jëm mairie dafa ndaw na bukki lu mu lëndëm lëndëm da koy jëli amul problème ñun nag xam nga ñun nag bu leeree bu leeree la ñuy bëree ñun duñu xaar mu lëndëm ah, amul amul problème. mais ñu dégg magam waat ne billahi wallahi taalaay booy ñaaree daan moom. mais loolu la rek amul benn problème làmb ji moom ku fay dem da naan da naan damay daan kenn dem làmb ji naan <laughs> mais le problème ci kàttan sunu di xam ne sama waa mooy neex a faral dimanche neex a faral lundi. guddi guddi parcelle. incha allahu rabi ci kàttan sunu borom. mais dañoo gis à chaque fois Modou Lo bu amul hmm, combat. Hmm. Euh, maanaam day tey trop. mais hmm. euh, confrontation yi gis yëpp. bu dóoranteeg maa ñaaxal loo est-ce que loolu du nekkul pression bi nga xam ne mais dañ koo fekk si xam adversaire am di ko adversaire moo jógee fa mu war a taxaw fekk si moo tax mu pousse ko rek mais loolu dara loolu yëpp yàqul làmb ji day gën a neexal làmb rek ñaari adversaires yi ay sénégalais lañ ndam li génnul Sénégal euh, Boy Niang suma frère la suma doomu baay la Pikine la juddoo Pikine la dëkk Pikine lay représenté moo la représenté Parcelles ñu ñaan yàlla yàlla may jàmm ba ñëw ci làmb ma daan ko jël bu seet wecc incha allah rabbi wanul benn werante ci kàttan suñu borom jaa ngeen yàlla yàlla defal leen jàmm waaw mon ami ñu naa mu ay yow la Eh, ne xaw ma lan man ma sax de année mais lom de yoo xam te nii àndul sax kado oto boo fi kenn waxate ay lom de one du ma du ma du ma benn lom de one waa Senewet waa Senewet nag ça fait porte plainte te ah. parce que un fokk ma porte ah taf ma si kii di wili pande Bou Siteu naan Bou Siteu mooy lom de année si ay waxu kese dinaa leen porte plainte waa Senewet hmm? waaw wallaahi li may wax Idaali Idaali bu Waly Seck xam na li may wax bu baax. waaw mais ay euh, jamono ji dafa mel ni da jox bopp ki nga xamante ni moo di la chanteur du peuple Waly Balago Seck. waaw les chanteurs du peuple maanam man Waly sekk lenn rek laay laay affecté ñi nga xam te ne ñoo gérer affaire sapeur affaire police di laan wax ne maanaam damay interpeller directeur u sapeur di leen wax ne Waly sekk dina mës a def est-ce que xam nga ne Waly Seck dina mës a def kirimam dina soirée dina mës a am kirim hmm? ñu ñuy ñuy wax ak sappoor yi ñu fiy indi ay ay centaine de oto sappoor ndax Wally Seck way muy way ci réew mi Wally Seck gisoo keroog Gàmbi nu mu def Gàmbi tuuti gars yi dee foofu Wally Seck wayam bi wallaahi bu Wally nag boo wàññiwul ni ngay woyee di nga mus a def kirim sa soirée waaw di wax ne sappoor yi nañ ñëw suba sappoor yi nañ fi bëri xam man damaa xam lu may wax guddi yi Wally am na lu mu am na lu mu dencal jeunesse su Sénégal ci way bu neex yow Wally Seck lu mu way ñun ñu ko léegi comme buusi dara su ma def lu ma wax si interview gars yi dem TikTok ko challenge ko kon waale tey dafa toll si guddi yooyu waaw di interpellé nag directeur sappoor di la wax ne lu ñu mën a buukale wu si ay sappoor indi ko fii suba rek nañ ko fi indi quoi. Mhm. xam ne Wally Seck bu dul loolu dina dina def kirim si soirée am. waaw question bi ñu tëjee mooy ñu ngi waaj élection te xam na ni yow yaay euh, porte parole des jeunes euh, nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi ak les opposants gi rek benn message laa leen di njëkk a wax di leen wax ne tëli tëli yoonu Tiwaawan Pël bi mënoo leen ñoo defaral Tiwaawan Pël yoon bu gaaw yoon bu leer te defoo leen fa ay lamp te loolu Cambérène ba ba ba Cambérène ba Tivaouane Peulh amul lampe da gis oto bu gaara sax ñëw seere nga gis nit daw ba daw dugg oto bi ay nit fo nga fay ñàkk seen bakkan si yoonu Tivaouane Peulh bi ndax lëndëm bi mu lëndëm maanaam manqué manqué sécurité te ñun ay carburant la ñuy lakk di jënd ay essence yu seer chaque jour bu ñuy ñibbi di jaar foofu di lakk carburant kon xaalis boobu noonu nga ngalawaay defaral la ñu si lampe yoonu Tivaouane Peulh bi leer ñun ñi kii mais chaque jour soog yoo xamante ne kenn xamul nu mu demee ndax yu ndax dëkk bu lëndëm message boobu laa am lu may jaalale di jàllale tamit jeunesse su géej waaye di wax nañu yeewu te ñu xam ne xam nga affaire politique yi maanaam ne nañ maanaam ne na na jeunesse bi yeewu waaw na jeunesse bi yeewu xam bu baax ki ñuy wooteel te parce que réew mii nii guddi ku wóor lañ ko war a jox war a waruñoo jox ke kenn kuy nax jeunesse bi si réew mi ndax jeunesse bi sonn nañ jeunesse bi luñ jot a dund rek dafa doy kon ngalawaay képp bu ñuy falate fii nañ fal ku wóor ndax gars yi dañuy yërëmantalu ba nga fal leen ñu ñu ñu falu rek nekk ay golo ñoo gën a xam li ñu lu ñu leen wax. nekk ay golo xanaa yow kon li euh, li li Boy Niang wax Modou Lo moom ngay confirmé. comme maanaam. ah yëgoo li booy ñaa wax Modou Lo. non yëgu ma ko maanaam ñooñu sama niveau dépassé na ñooñu. sama niveau dépassé na ay Boy Niang ak ay ñooñu ma sama niveau dépassé na mbër yooyu de. mais seetaanu open press yi. ma ko sax maanaam sama niveau léegi niveau bi ma toll. moo dem ba dépassé naan maa ngi suivre ay ay ay mbër yi nga xam te ni ay ay ay raq lañ maanaam su ma la mënee wax sama kanam ay raq lañ. Ah maa leen dàq communiqué dàq leen a bëri ëpp leen fut xam Modou Lo xam nga ma bu baax booy Niang yow xam nga ma bu xam nga kuy buusite bu baax a baax a baax. sama niveau dépassé na leen léegi. mais combat bi ñoom ñaar euh, kan kan mooy kan mooy mooy favori ci combat bi. waaw combat bi moom suñuy wax favori moom Boy ñaa mooy favori. waaw Boy Niang mooy favori ba pare len laa lay wax si combat combat bi gis naa si dóor mu daanu. dóor mu dóor mu kaawte. maanaam ñu dóor si mbër mu kawte waxuma la comme ça ñu dóor ko niir bu kii maanaam mu kaawte ba ba perdal ñu daan ko. loolu laa gis si combat bi te incha allah combat bi yàggatul ne ñëpp seetaan xool. loolu laa am lu may wax di nuyu Sénégal nag ñëpp